engagement bi nga xamné respecté hein. mais aussi le droit di wax promesse trahie c'est un espoir dessus wanti lepp luñu joytu ci at yi passé le 31 juillet sénégalais yi am nañ possibilité ñom dakal ko dakal situation parce que soudé sénégalais ci nu ma ko jàppee maanaam majoritairement ànduñu ñu ngi métitlu yi ñu gis c'est-à-dire règlement de compte yi ñu gis en lieu et place reddition des comptes yi maanaam liberté yi nga xam ne moom constitution bi accordel ñu ñëw di ci dellu ginnaaw muy liberté de manifestation muy liberté d'expression manam ñu bëri fii ci ay opposants am nañ fii ay jafé jafé parce que tout simplement dañu jàppoon de dañu offenser chef de l'État alors que boko jangé ba jàng ko ci bir président dafa jëloon ben engagement moy bu joté ci buumu réew mi dina bàyyi président su parti parce que comme nous ko yone prévoiré moom dafa war a nekk gardien ak arbitre dafa war a nekk ci maanaam ndeyu ñëpp wante président de la république boo xoolee